naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk yi téléspectateur Equivox TV tey nag ñu ngi leen di 19 juillet 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay yi li ñu indi tey ci altine ji ñu dikkaat ak yéen ci li nga xam ne nii moom moo di plateau bi lundi 19 juillet 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb tey xëtam mu njëkk lam ca xëy fesal wala ña ca xëy fes bokk na ci lamb yi nga xam ne ni boo bëggee dégg dëgg bu tabaski gi passé ñoom ñoo jege di ay bés yoo xam ne bés yu mag a mag a mag lañ bokk na ci Balla Gaye numéro ak nga xam ne ni moom moo di Bombardier yëglikaay bi xëy na tey ci xëtam mu njëkk dikk ci diggante Balla ak Bombardier na nag ah Covid 19 ba nga xam ne fi mu nekk nii day kaay ñu ngay yokk daal maanaam di gën a jëm kaw rek daa mel ni ki nag tax na boo sàgganee combat Balla Gaye numéro 2 moom ak Bombardier huis loo partiel boo sàgganee maanaam mënees na ko caa xaar maanaam huis clos boo xam ne daal moom des na ko xool xool ci yan anam la na koy defee yëglikaay ba moo ko wax ak itam loo xam ne moom bu keroogee du ca ñàkk maanaam foofu maanaam sol sa masque par force moom kuy dugg ca làmb ja wala nga bëgg a seetaan moom di sol la nga xam ne moo di sa masque wala tamit duñ ca yem respecté la nga xam ne tamit moom moo di diggante ba nga xam ne moo war a dox ci diggante nit ngir sore ga lépp ngir gën a moytu la nga xam ne moom moo di coronavirus bi la nga xam ne tamit moom la ñuy raxase ay loxo tamit deesu ko ca fàtte muy gel yaag yu mel ni ki noonu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu boobu combat nag fi nekki nii daa mel ni ba tey ñu ngi cay coow keneen koo xam ne ni maanaam ca menn mbër ma moo ko yor di ko manager muy Aline Gueye bu Gaston production wala Aline Gueye boog borom line production nekk itam manager bu Bombardier Aline Gueye nag moom la mu xëy di xamle ginnaaw Bombardier daa génnoon na 30 marab bu maanaam fanweeri sëriñam yoo xam ne ensiréel nañ ko victoire Aline Gueye nee na da ko daal Aline daal ba mu xëyee a ndax la mu xamal Bombardier ne na ko yow ay marab bu sax da nga ko dépassé maanaam yow ay jinne nga yor ne na kon Balla Gaye numéro 2 na def ndànk bu baax a baax ba dégg-dëgg na ko boo bëggee dégg-dëgg yow Balla jàppal ne Bombardier la la wax la loolu mooy li gën a tuuti ci moom moom ay jinne sax dafa ànd ak ñoom loolu mooy li nga xam ne nii daal moom moo di maanaam waxi Aline Gueye numéro Aline Gueye ma nga xam ne nii moom mooy manageru ko nga xam ne moom moo di Bombardier Gaston Mbengue ba tey moom tamit daa mel ni daal décroché na la nga xam ne moom moo di retouru sos diggante ma ka nga xam ne moo di Aline Seye numéro 2 yëglikaay ba xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu Balla Gaye numéro 2 nag bu fekkee Bombardier daa yor ay jinne daa mel noonu loolu tamit tax na moom mu ngay wër fa nga xam ne moo di ca réew ma yëglikaay bi moo nu ko xëy xamal ne nu Balla daal mu ngi wër réew mi ngir nag di gën a defar boppam ci wàllu mystique bëgg boo belende boppam buñ ca yeggee yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag combat boobu ba tey daal suñu làmb xëyaat na ci daal yaatal na ci tey lu baree baree baree bari ndax mu ngi nuy xamal ne ka nga xam ne nii daal moom moo di Balla gay numéro 2 daal mu nga xëy di wax ci yëglikaay ba nga xam ne moom moo di sunu làmb Balla daal la mu xamle daal nee na li am ba des daal nee na maanaam moom maanaam daal rawaasam bàyyi na ko xel jàpp na tamit loo xam ne daal jàpp na ne Bombardier daal lenn la foore mu nga xëy ñëw di ca wax ci ay forum yoo xam ne jàpp na ne technique ya mu yor bëriwul xanaa wàllum palaake ak li nga xam ne nii moom moo di wallum wër ndombo ak xeex nee na yii la yaakaar te yooyu bu buñ ca yeggee su keroogee dana xam ne lépp dëgg la ba tey yëglikaay ba ca biir ñëw na ci génnug àddina per Balla Gaye numéro un ma nga xam ne moom moo sosoon école de lutte Balla Gaye maanaam nag mu mel ni génn bu Balla gay 2 di njëkk génn ci carrière am te père Balla Gaye Ndour du ko fekkee yëglikaay ba ñëw na ca keneen koo xam ne ni moom maanaam jàpp na lamb le 25 juillet muy ka nga xam ne ni moom moo di Boubacar Niang borom Ama Events daal daa mel ni lamb ja mu taxawal moo dox ci diggante booy Mbour ak Ada Fejoor lamb ja nag vingt cinq juillet lay am mel ni ki nag bërki démb def nañu ab jàkkaarloo boo xam ne daal bu tàngoon jër jër la nu def buñ fa jógee nag wala boog dañuy des ba tey ci yëglikaay bi combat boo xam ne taxaw na le 8 août la war a am diggante ka nga xam ne moom moo di ordinateur ak ka nga xam ne nii moom moo di Toubacouta combat ba daal le 8 août lan ko war a bëre yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dem les arènes les arènes moom lan fay fekk mel ni ki papa sow lan fay fekk moom itam daal maanaam boo bëggee dégg-dëgg moom mu war a bëree le premier août diggante mag Siteu combat ba nag maam fi nekk nii daal langa xam ne mooy xaar papa sow ci la les arènes tey ñëw ne na papa day am na ay mbir yoo xam ne nii mu ngi koy xaar bokk na ci defet ba nga xam ne nii daal amee woon na ko ci Lac de Guiers numéro nekk na loo xam ne nii daal lu mu war a la yemuñu ca yëglikaay bi na ak itam dugal xam ne Ama Baldé dugaloon na ko ko gën koo dugal ci la nga xam ne moo di saako ba nu muy def ba génnaat ca muy ñaareeli mbir ba ñetteeli mbir ba départ ba nga xam ne wala boog jóge ga nga xam ne jóge na ko faas wala ñu jëlee ko fa mu dem keree la nga xam ne moo di écré boppam loolu tamit nekk na mbir moo xam ne nii war naa tax papa jéem a am ndam jéem leneen loo xam ne tamit kaay ba ñëw na ci maanaam jéem a gañe sa tamit ngir gën a rebondir maanaam daal amaat taxawaay bu bees teq ci làmb ji moom Papa Sow yëglikaay bi moom moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu diggante Balla gay numéro 2 ak Bombardier tamit les arènes ñëw na ci kelewu combat ba daal am na ku xëy di ca wax muy ba Bafa Gueye di ab entraîneur nekk fa nga xam ne moo di ca région de Fatick moom daal xëy na seq waxtaan wu yaatu ak yëglikaay bi mu ngay wax ca la nga xam ne ni moo di combat booba beneen combat boo xam ne le 8 août la war a am war a dox ci diggante booy Niang numéro 2 bu Dégol ak Tafatin borom mu mel ni ki nag Boy Niang moom ginnaaw weeru yàlla woo xam ne daal amoon na ko bitim réew diggante Chine ak France daal yëglikaay bi xamal nañu ne day ñëw na nag fa nga xam ne ni moom moo di Sénégal waaye Boy Niang yëglikaay ba la mu seetlu daal ne ne boo bëggee dégg-dégg salon d'honneur ba moom ci aéroport fay ko la def de bi daal dikk na ci moom ak itam ñoom Tafa Kanjeeg ña ko jëli woon daal nañuy weyee ci Boy Niang nan koy bàyyee xel bëgguñu lenn loo xam ne lu ko jege la wala lu koy laal wala lu koy yàqal ndax nag bis ba ñu jëm dalee na ñor torop torop torop torop te itam gisuñu te lenn loo xam ne ni moom lañ ca war a amee lu dul ndam yëglikaay ba moo xëy ñëw wax nu ko zos tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak ak dikkaatam ci làmb ji digganteem ak nga xam ne ni moom moo di Aline Sey numéro de yëglikaay bi di les arènes xëy na tey dikk ci am na keneen koo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak i jaar-jaaram muy ndem si yàlla moor Fadam yëglikaay bi daal nee na Mor le colos de Fadam maanaam yëglikaay ba moo xëy dikkaat ci moom ak école de lutte ba nga xam ne nii daal moom la sañcoon mu wala boog moom la sañ muy école de Fadam yemuñu ca ak la nga xam ne nii daal moom la nekkoon ci ab écrit daan ca bëri muy écrit njàmbur ba tamit ñëw ci fa nga xam ne moo di capitale sénégalais bi moom Mor Fadam. yemuñu ca ak la nga xam ne def na ko muy vice champion du Sénégal ci wàllum boxe nekk na tamit champion d'Afrique ci wàllum lamb maanaam wàllum lit nekk na tamit loo xam ne ni daal am na defet boo xam ne tamit arrivé woon na ko ci carrière am muy defet boo xam ne bu metti woon la muy souvenir boo xam ne kenn dootu ko fàtte doxoon ci diggante ma ka nga xam ne ni moom moo doon Mohamed Ndao Tyson waaye tamit yëglikaay ba yemu ca de ne na booy buwul exemple royukaay ci wàllum fair ak tam yu mel ni ki noonu daal ne na jàppal ndem si kenn munu ko cee raw mbër la woon moo xam ne fair play am foo ko takk weesu na ko la nga xam ne nii daal ab yaram tamit ak i tegginam foo ko takk weesu na ko moom Mor Fadam yëglikaay ba mu xëy tey ñëw les arènes dinu wax lu mel ne ki noonu kon nag hélas ko mel noonu génn àddina de sunu papa Mor Fadam Wade yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te xare ko aljana moom bépp mbindaafoon bu tëdd ci suuf ndax nag loolu defe naa sport ku ko xam di ko dund faw nga fair play ab yar tamit buñ buñ la ko waxalee muy dëgg jàppal ne am nga gàllaaj te moom wax dëgg yàlla ñun biñ ko xamee yàggul ndax nag maanaam loolu yëglikaay bi wax muy les arènes lu nu mën a dëggal la xam nañ ne daal bëriwu koon coow amoon na bi yar te itam nag foo ko fekkaan hélas yaa ngi fekk kurusam ci loxoom muy wér da di wéetal boroomam ku mel noonu nag defe naa ne kon xale ya nga xam ne ñoom la formé muy ñoom guy geeg xale ya nekk école de Mor Fadam nañ ko jéem dafa broyukaay ndax nag am na héritage bu rafet bu leen fi bàyyil ndax li yëglikaay bi xëy tey indi muy les arènes defe naa loolu lu jara roy la jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi loolu lañu tey xëy indil ñu ko fi ñu ko tëjee nag mooy nem si yàlla si Mor Fadam yàlla na ko yàlla xare aljana moom bépp mbind afoon bu tëdd ci suuf yëglikaay bi di les arènes tey moo ñëw ci moom ci lu yaatoo yaato yaatu jaar jaaram li mu nekk ah, euh, ci wàllum ay trophée yu mu gañe ni mu ne ak tamit xëy na defet bi mu amoon ci Tyson ak itam royukaay gi mu doon ci wàllum fair play ci sport ak yarba te loolu lépp defe naa ne Sénégal yépp ko constaté rawatina waa lu làmb ñi bokk nag moom milieu bi mu nekkoon kilifa goo xam ne wax dëgg yàlla ku baaxoon la sos école tamit école ba itam wax dëgg yàlla ba mu ko sos sosee mu ne école ba niil na ndax école ba tey defe naa ne ah géejawaay bu dee am na ñetti mbër yi gën a seer géejawaay bu Balla Gaye jiitoo Lac de topp guy gi day ñëw troisième position te loolu ko keree mooy suñu papa Mor Fadam ndax école de Balla Gaye dafa am fekk fi écrit waalo ndax écrit waalo moo jiitu woon ñoom père Balla Gaye ñoom Mohamed Alek ñoom père si yàlla Aline suñu papa Aline Sey 1 ak ñoom suñu papa père Balla ah, ñoom ñëpp nekkoon écrit waalo après Lac de ñëw ku écrit di continuer ba li Lac de ñëwee ñoom ñëpp ñu ne fa ñoom liiru Diane ñoom Aline Sey 2 Diaz ma koy nuyu di ko ziar dégg naa ko maam ak Zos. ak mbër ya fa nekk ñëpp bu ma limee dinaa juum te Yékini wàll boobu di continuer père Balla Gaye Ndour xëy sos école de Balla Gaye te école de Balla Gaye defe naa ne tey ah exemple la ci école yi ndax roi des arènes génn na fa waaye école dit Mor Fadam tamit exemple la ci école yi ndax fexe na ba génn ay poulain yoo xam ne ni defe naa kenn mënu la nata natable ci ci làmb ndax boo guy gi ne saakajor numéro 2 nga ay ndog ndog yàq làmbam waaye defe naa ne amul mbër muñ na leen dàq na bëre saakajor déedéet waaye gis nga yàlla ak i mbiram ñu koy nuy di ko jaar ca fa mu ne moom Sa Kajoor numéro 2 ca Espagne mais guy gi tey ku muy bëree Reug Reug nekk ci mbër yi nga xam ne mu ngi jongante ci niveau yi gën a gawee ci làmb te loolu école de lutte Mor Fadam la ana Marle ana Pape Thiam hmm? lépp école waaw ñooñu sax nekkuñu waaye loolu ci mën a dégg école Mor Fadam moom maanaam école la boo xam ne royukaay la xëy na Marlek Pape Thiam bokkuñu fa maa ngi jaawale sax waaye daal xam na ne guy gi rek su ma ko tuddee day doy tudd xale yooyu ñoom Mbaye Diop Safar ah ñoo ñëpp ci école bi ñoom mbaytin waaw mbaytin de ñoom ñëpp foofu lañ ne muy école boo xam ne kon Mor Fadam royukaay la yàlla na ko yàlla xaare aljana waaw marle maa ngi jum mook mook ñoom pap ci am ñoom école di papakan lañ ne mais lépp ci géejawaay la ba tey rek waaw kon moo lay wan ne géejawaay tamit wax dëgg yàlla ci làmb moom ah ñu ngi ci wane seen bopp bu baax a baax a baax a baax mais bu ñu xëyee nag ñëw wala bu ñu continuer dem si sunu làmb li mu ñu indil tey ci xëtamu njëkk mooy Bombardier ak Balla Gaye daa mel ni combat boobu tey yëglikaay bi yaatal na ci bu baax a baax ak Covid xam ne boo sàgganee ah nag kaaya yokkoo ci ni ñu ko dégg ci médecin yi ko wax fan yi tax boog huis clos partiel dana fa am huis nag bu ñu ko waxee moom maanaam nit ñi nañ doon duggee doo duñ ñu duggee te bu dugg amee ku dugg di nga sol masque par force dinga yor sa gel di nga raxas say loxo sorente dana am kii day toog ndar kële toog waa kii toog fekkee toog fee pour sorante ngir lan bañ a wàllante feebar loolu nag jar na ko ndax jàngoro moom loo ko mën a daw lu ne ba du la dal moo gën waaye itam comme mënta ñàkk moo dund doomu aadama ànd la ñuy ñaan mooy ku képp ku di yàlla na nga wér barke bi sallallahu alayhi wasallam waaw muy combat boo xam ne nag ah, xam naa ne moom loolu bu ci amee du gënal amateur yi waaye nag ko amut yaay dangay ngay nàmp maam ndax xam naa li gënalu nit ñi mooy ñu seetaan ko muy Balla Bombardier Balla Bombardier tamit mu mel ni coow li bari na ci Aline Gueye moom mooy manager Bombardier Aline Gueye daal nee na Bombardier la mu yor sa rom nay maara bu ay jinne la yor ay jinne nag hélas moom ku koy indaale ci làmb ko jara moytu nga Aline Gueye nag moo ko wax kon ne na Balla moom lu na xam ne day li koy xaari na mel ni ki nag Balla xam na loolu ba tax na mu ngay wër at mu ngay wër dëkk ba de kay ba xëy wax na ko nee na mu ngi wër Sénégal de ngir gi jéem a blende boppam ci wàllu mystique ne quoi ah, jar na ko ndax kuy bëre ku yori jinne moom jar na ko bala nag nee na moom Bombardier fort ba moom bariwut nee na wàllum palakaas la am ak dóor ak sentir te na yooyu moom maanaam daal euh, kiiwul waaw nekkul lu garaaw a garaaw a garaaw euh, Gaston Mbengue décroché na Zos ak retouru Zos le showman noonu na ko yëg likaay bi waxe ak Alioune Seye 2 ah combat la parce que Zos noonu na fi bàyyi na làmba waaye Zos defe naa bi muy wax bàyyi na làmb daa bett ñëpp parce que gisuñu woon boobu lu tax mu war a bàyyi làmb doon que nag demoon na ba teglante ay defet parce que daa dugg ci tournoi TNT bi ñam fa bokkaloon ñëpp daan ko mu génn fa jël Zos jël Siteu di mooy Siteu dóor ko mu daanu ba ñu ci jógee nag mu jàpp nag kon xalaat dafa war a bàyyi lam te sport du noonu sport dafay am ay da ngay nekk ci moment yoo xam da ngay dun ay moment yu diir a diir mais des fois boo defaroo mën nga dikkaat waaye nag xëy na loolu taxoon na mu ne bàyyi def ay déclaration nekkoon ci affaire dama naan ko ak yoo mën a loo mën a ne bu la xamee lamba tax ñu xam la sa euh, say at jeexagul say moroom ne ci làmb ji kon defe naa ne entraîné ñëwaat bëriwaat may nañ la sens nag ñu xool ndax di nga ko saisir wala déet Alioune Seye 2 nag fi mu nekk nii moom hmm? am na fu mu bu yàggul xaw ma nag ndax fa lay jaar ak ka nga xam ne ni moom moo di sa waay wala déet euh, ah, Boubacar Niang sunu xarit moom itam daa mel ni gis nañ ko ci benn combat boo xam ne daal am na mu amoon ab jàkkaarloo bu tàngoon diggante ki nga xam ne nii moom moo di ah Boy Mbour ak Ada Fejoor le cinq juillet nag la combat bi di am bërki dem nag lañ doon defu jàkkaarloo le 8 août tamit am na combat bu taxaw ordinateur ak ki nga xam ne nii moom moo di Toubacouta combat ba taxaw na yëglikaay bi du suñu làmb moo xëy wax nu ko loolu nag ñaari mbëri simple la hélas Toubacouta nag defe naa soriwu la waaye wala da wala da ngay jaar Passy door dem Toubacouta parce que ngay njëkk génn dugg Toubacouta ordinateur dëkk ñaaxar ña ah ñaaxar moom man la gën a jege mu ngi ci sama côté ndax da ngay gi da ngay dugg ngoy da da ngay dugg Bambey dugg ngoy génn dugg ñaaxar waaw kon ñaar ñooñu ñooy bëri bu ñu fa jógee dem les arènes ñëw na ci Papa Sow. Hmm? ak la koy xaar defet ba mu jëlee ca lak la la mu ak la mu daj ci ama moo tax yëg likaay bi ne juróomi mbir ngi yoo xam ne day Papa war naa góorgóorlu de war naa góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax nag yëg likaay bi dina ah premier août moom bés la boo xam ne waru ko rate yëglikaay bi nag moo ko moo gisee noonu ndax jàpp na ne dafet laa moon ci lak am ci ama ñëw ci ama ba di gën a dugg ci saaku bi départ am face mu juróon coow rebondiraat te li koy may mu rebondir mooy mu gagné sitta waaw nag boo ko tënkee ah moom wax dëgg ay défilé yu bare bare te yépp mu ci mën a doon dëgg la yu mu war a bàyyi xel te gëm naa ne nag bàyyi na ci xel ndax Papa Sow ku ne xam na ne tamit sportif la moo tax la premier août daal combat la boo xam ne tamit wax dëgg yàlla combat bu ndeysaanu la ci ñoom ñaar parce que si tey dafa jóge ci defet dafa jóge ci defet digganteem ak guy gi Papa Sow jóge ci defet diggante ak Ama Baldé kon defe naa ñoom ñaar ku ci jëlaat defet dina metti lool ci yow te le premier août faw mu ñël am du mën a ñàkk ka ñuy wax muñal waaye bu keroog itam day dem liggéeyaati donc loolooy làmba Balla gay 2 ak ki nga xam ne moo di Bombardier euh, la clé de la victoire ba fa gay xëy na di ko di ko wax ba fa nag bu ñu waxee mooy l'entraîneur u Fatick bi ñu koy nuyu di ko ziar hmm, suñu xarit la waaw moom nit ku baax la vraiment dem nañ fi benn suur kaw Fatick defe naa ne kera boobu maa ngi léewtoo vraiment mu dalal ñu waxtaanoon fa waxtaan wu amoon solo moo koy nuyu bu baax a baax waaw parce que ci sama xamanteeg moom dëgg dëgg dëgg li ko gën a yaatal mooy Ndeye Coumba Fall mooy nuyu tamit Ndeye Kumba Fall borom Bantamba maa ngi koy ah yaay Mohamed maa ngi lay bëggee bu baax a baax ko la moxtani yan maa ngi lay bëggee namm naa la yëglikaay bi tamit dikkaat na ci Mor Fadam ak fi mu jaar ah, école it Mor Fadam écurie Ndiambour vice champion du Sénégal ci wàllum boxe champion d'Afrique ci wàllum lutte combat bi nga xam ne nii souvenir bu metti la woon digganteem ak Tyson waa ku ne gisoon na diggante ak Tyson seen combat ba fa mu mujjee. Hmm? bi ñu bëree Gambie moom coow ñu ndiwaat ko Sénégal waaye tamit nekk na ko xam ne royukaay la woon ci wàllum fair play yëglikaay bi xëy tey wax ñu ko loolu nag dafa am solo fair play daa bokk ci sport moo fa dam nekk royukaay comme li ma waxoon sànq rek loolu laay waxaat royukaay la boo xam ne ni wax dëgg yàlla ah yàlla na ko yàlla xara aljana daal di ko ñaan bépp jullit mais hélas di leen nuyu di nuyu tamit sénégalais yépp di ñaan yàlla tabaski gi nga xam ne moom lañ jublu yàlla nañ ci dem ci jàmm ñibbisiwaat si jàmm ku ci dëkk boo mën a jóge di dem ci sa dëkk di julli ji yàlla na la yàlla teg ci yoonu jàmm nga yegg si jàmm te itam ku nekk rek li nekk say xalaat ndax xalaat yi bokk na ci xar ba ngay tëbaskee la koy togg la muy àndal ak tamit la nga xam ne moo jëm ci wàllum colka muy yére yi yooyu yëpp yàlla na ko yàlla yombal yombal dem yi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lépp yàlla mën na ko te itam dara tëwu ko et bu ñu demee tamit yàlla nañ ko passé si jàmm ñibbisiwaat si jàmm ku dellu ci sa liggéeyukaay jàmm rek am yaa ngi dégg yàlla yokk fan yi muccal ñu hmm? te itam def ci suñuy poos dara def ci seeni poos dara comme na ko suñu ustaas bu baax boobu di wax sa Alioune Sall loolu lañ koy ñaan di ñaan yàlla tabaski gi daal ah yàlla na neex ba yegg ci lool barke yonent bi sallallahu alayhi wa di nuyu ñëpp ñëpp fu ci waay jëm rek yàlla la yàlla yóbbu ci jàmm di nuyu ko xam tam suma waay la di suma nit sa sëñ sa Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax sa tulëg daawur ndax hélas euh, sopp ma sopp naal da koo gën a wóor te moom wax dëgg yàlla daf maa sopp trop Idrissa sa maa ngi koy nuyu bu baax surtout lëg daawur boobu di ko ñaanal jàmm di nu tamit Serigne Cissé mu sëñ Babacar Sy moom tamit du ma ko fàtte moom tamit ku ma sopp la maa ngi koy bëggee te noonu te noonu ñu ma soppe laa leen soppe di nuyu Moussa Dia ñëpp samay soppe lañ maa ngi koy nuyu sëñ Moussa maa ngi lay bëggee bu baax baax di nuyu sa xarit yooyu ah, ñoom Matar Diame ñoom Lamine ñoom ñëpp ñoom Abdou Waxal maa ngi leen di bëggee bu baax di nuyu képp koo xam ne tamit yaa ngi ñu suivre ci Equivox TV ak foo mën a nekk ci àddina bi rek maa ngi lay bëggee rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp boobu ba tey des fois ñu juum des fois ñu wax leneen lu dul noonu mais 100 pour cent di nuyu masaw ki nga xam ne daf ci am am ndok muy Mass Ndiaye maa ngi koy masaw di ñaan yàlla loolu la arrivé yàlla na ko yàlla teggi mu sedd ak jàmm di rafetlu taxawaay bi ci gaañi am ñoom Pape Ndiaye ñoom Jigé ñoom Cédric ñoom ñëpp ñoom Grand Lay wax ne àddina moom moo tëdd noonu ah Mass mais jàppal ne ñu ngi ci sa ginnaaw saa su di ñaan yàlla loolu yàlla na ko yàlla seral mais tamit du nuyu sama président du jànjee ko président des amateurs maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax a baax a baax ah lébu ndooy du jaan jeg ko borom jeg ko borom Medina <laughs> maa ngi lay béggee moom suma waale suma xarit la maa ngi koy béggee bu baax a baax hélas di ñaan jàmm di la nuyu yow tamit waaye di nuyu Abdou Aziz Aly Ndiaye borom huile Zador yàlla na sa jàmm yàgg waxoon naa ko Zador bi moo fi ne tabaski du mën a ñàkk huile baag moutarde jaag teebaag yu mu ci mën a doon macaroni ji lépp am na gaay beneen yoon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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk